ndax 28 yi moom lañ dëppoo mu nekk cotisation boo xam ne buñ sañoon semaine bu nekk murit bu fi nekk ci dëkk bi jaayante ko. dégg nga loolu kenn ku ne jaayante li sëñ Tuubaa bëgg mu am ko te sëñ Muntaxa li sëñ Muntaxa li mu bëgg ngeen dundal xam-xam fii te wut fi ko sëñ Tuubaa man na kon barkeeloo naa ci 100 euros yi muy sama tàmbali tey ñaan murit bu ne taxaw ci temm ba sëñ bi am li bëgg.